Nous sommes euh, dans le puits de, de Maïli, Nuseiba et Yousra. Alors, pourquoi ces trois prénoms Parce que c'est euh, encore trois personnes de l'association. Euh, les trois sont tombées enceintes et ont eu les enfants à peu près à la même période. Maïli, c'est ma fille. Nuseiba, c'est la fille de Bintou. Et Yousra, qui n'est pas encore née, qui va bientôt naître normalement ces, prochains jours, Inch'Allah, bah c'est la fille Hassina. En tout cas, voilà, on voulait que, vu que nos premières filles avaient tous euh, le nom euh, concernant un puits, eh ben, on a voulu faire la même chose euh, pour la future génération. En tout cas, voilà, le puits, par contre, il fait à peu près 27 mètres de profondeur. il est quand même bien fait, l'eau est, bonne, elle est claire. Et comme d'habitude, on ramène aussi bah, des lampes solaires pour qu'ils puissent s'éclairer la nuit au niveau du puits. Il fait très très chaud, il n'est même pas encore midi. Hein. Mais vraiment très très chaud. Je ne sais même pas à 14h comment le soleil il va taper. mon, avis, on va dépasser les 40. Facile. En tout cas, on a distribué aussi euh, des paires de béquilles. Euh, les villageois sont contents, nous aussi on est contents. Et on va continuer comme ça tout le long de la journée. Voilà. France te di jaareel nuyoo gi ci loxo borom dëkk bi ak ci loxol imam eh, comme niñ ko defee woon la fois passée tey ñoo ngi waat ni di inauguré teen bi nga xamante ne mbokk yi ñoo ko financé jaarale ko ci seen loxo donc su fekkee am na lu ñuy wax mooy di leen gërëm infiniment di leen gërëm parce que c'est pas évident que bërëb bu sore bi fii ci Sénégal ngeen def seen alal ngir yàlla ñëw jox ko population bi pour ñu koy jëriñoo donc loolu ku la ko defal c'est tout à fait normal ka nga sant ko donc ñoo ngi leen di gërëm dama ci sama tur man en tant que imam ak tamit ci turu waa dëkk bi yëpp bon amoon na fi ay teen mais teen yooyu euh, comme ni ma ko waxee c'est pas évident maanaam teen yooyu tamit euh, nekkul teen yoo xamante ne mm, ndox mi baax na genn baaxaay gi wala teen yi moom ci boppam mu nekk teen boo xamante ne disponible na pour ku ci bëgg am na am ci ndox ñu yaakaar ne ni teen bi moom incha allahu taala dana mën a répondre suñuy besoin dañ jàpp ne tamit ndox mi incha allah taala qualité bu baax la te lu doy lay doon. baax na te macha allah eau potable tamit. waaw moom comme ni ñu waxoon dëkk bi yëpp benn lañu donc te gis nañ ni endroit bi moo nekk endroit bi gën a placé loolu moo tax sax ngeen gis ne ni finalement dañoo mujj mais aménager place bi pour ñëpp mën koo jëriñoo nga xamante ne du doon benn nit mais pour toute la les populations. wala may wax ci mbiru terre bi ma jëk gërëm li fi indi terre bi ak fi mu jaar ba ñëw fi moom njëkk gërëm sama gis-gis ci terre bi nag njëriñ bu bari la kenn mënu koo nat ndax premier jege na dëkk bi am na aar ñu koy aar pour dara bañ si dugg loo xam ne bokku ci li bokk tax ñu def ko ci biir kër gi xam nga am na teen yoo xam ne jiitu na fi mais plus tard dafay yàqu lañu mën a wax dafa yàqu biñ ko defee biñ ko fii defit defewuñ ko fi pour na dugg ci biir kër gi defewuñ ko fi pour li mu jege kër gi kooku rek moo ko aaki ah, moom moo koy jëriñoo dëkk bu yëpp ñoo koy jëriñoo dëkk bi yëpp ñoo ko moom ndox mi neex na set na macha allah amul lenn loo xamante ne daal gis nañ ko ci lu ci sëkk nii nii moom mm. waaw